Sama ñu ngi lay nuyu. mais ma ngi leen di bëggé wa sama ñu gis na tay ci téway ñëpp xam nañ la doom pigine nga ñëpp xam nañ Samba jaara ak li leen bolé tay open press ñu gis ci képp ko xamni ne ndaanaan Pikine nga rek bay nga lepp li nga doon def nga ñëw ci open press Boy wa waaw loolu mooy yoon xam nga tay Boy li ñu bokk dara dafa bari waaye bu dul dara ci pigine mo ñu yëngal parce que ñun pigine lañu pigine lañu juddo pigine lañu yoro pigine lañu tey boo ñaa bu xewle ñun ñëpp teew fii xam nga ndax Pikine rek moo nu ñor daal waaw noonu la demee. mais sama taay lu xew waa koñ bi kaa leen xool sama ñëpp a ngi ñëw di xool sama gars yi lu ñuy xool. waaw mais des na ah des na des na des na yu bëri xam nga ñun ay xale lan te dañuy liggéey rek liggéey baa ngi suñu kanam te dañoo toll ci moment boo xam ne dañoo toll ci moment prouvé donc nanu ñëpp ñaanal rek. Ah. waaw te xam ne lii ñëw moom moo dàq. waaw baax na kon si kanam incha allah